الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi gërëm di sant yàlla sunu borom moom mi ñu may ñu mën a teewaat fii ci suñu émission bi nga xam ni moom lañu dippee kàddu gu sell gi te saa su ne ñu ci waxtaan ak yéen ci waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko tibbee ci kàddu gu sell gi mu di bible bi di kàddu borom bi ëmb ay bëgg-bëggam yu sell yi nga xam ne bu ci doomu aadama bi tënkoo du ci am lu dul tawféex ak ay ngëneel yu jóge ci yàlla sunu borom kon ginnaaw bi ñu ko sante moom mi nga xam ne mooy lépp moom mi nga xam ne moo man lépp moom mi nga xam ne mooy def lépp lu sell lépp lu baax lépp lu jara naw ci suñu dund ak ci biir àddina si yow it mi may déglu maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu di ñaan yàlla wéy di wàccee ay ngëneelam ci sa biir dund ak ci bu sa njaboot kon mbokk yi ginnaaw loolu tey dañu ñëwaat ngir wéyale waxtaan yi nga xam ni moom lañu tàmm di waxtaan ak yéen tey nag ma bëgg a tàmbali ak yéen benn waxtaan boo xam ni dama ko dippee yoonu mucc gi maanaam dama bëgg a ñu ànd man ak yow di gëstu ci kàddu gi yàlla di xool lan fan lañu jóge suñu taarix suñu diggante ak yàlla sunu borom nan la tàmbalee ak fan la toll ci bés bii nga xam ni mooy suñu bésub tey ji wala jamono ji nga xam ni mooy jamono ji nga xam ne ci lañu nekk ngir loolu nag dañuy ànd dem ba fa lépp doore muy ci njalbeen ga téere bu sell bi di bible bi daf ñuy wax ni yàlla ca njalbeen ga moom mooy ki sàkk àddina ak li mu ëmb lépp waaye bu ñu ko gëstoo ñu koy jàng dañuy gis ni dafa am lu tax yàlla def loolu téere bu sell bi daf ñuy wax ni yàlla dafa sàkk leer yàlla dafa sàkk jant bi yàlla dafa sàkk weer bi yàlla dafa sàkk gàncax yi yàlla dafa sàkk géej gi ak li mu ëmb yàlla dafa sàkk mala yi picc asamaan yi maanaam lépp loo xam ne tey jii suñu bët mu ngi ci tegu ak li nga xam ne it suñu bët mënu koo gis ñun doomu aadama yi lépp mu ngi sokkeekoo ci yàlla mi nga xam ne mooy suñu boroom waaye bi yàlla di def loolu def ko woon ngir boppam ndaxte moom doyloo na boppam la mu yittee woon yépp yoroon na ko ci boppam laata muy sàkk àddina kon lan moo tax yàlla sàkk asamaan ak suuf lan moo tax yàlla def ci gàncax yi mu ci def lan moo tax yàlla sunu boroom sàkk géej gi ak mala ya nga xam ne ñoo nekk ci biir lépp li nga xam ne dañ koy gis tey jii te doomu aadama bi di ci jëriñu lan moo tax yàlla def ko téere bu sell bi bi mu tàmbalee nettali bi ba ñu dem ba ci biir dañuy gis ni yàlla dafa amoon benn mébét tubaab di ko woowee objectif moo doon mu sàkk doomu aadama maanaam mu sàkk aadama mu sàkk nit loolu moo doon mébétu yàlla waaye laata muy def loolu mu wone nag mbëggeel ak cofeel bi nga xam ni am na ko ci aadama mi nga xam ne sàkk gu ko sax mbëggeel boobu ak cofeel boobu moo tax mu waajal ko daluwaay laata sax mu koy sàkk moom aadama ak awa bi daluwaay bi pare te tey ji ñu xamee ko ci turu àjjana ñu koy woowee turu àjjana ñenn ñi di ko woowee tool ba ba lépp pare yàlla sunu boroom daal di sàkk aadama ak awa mu dugal leen ci biir tool muy firndeel mbëggeel cofeel bi nga xam ni yàlla sunu boroom am na ko kat ci aadama ak awa mi nga xam ne sàkk na leen te liy firndeel loolu mooy cadre bi nga xam ni dayoo bi nga xam ni mbir yi nga xam ni yàlla def na ko laata ñuy gane si àddina yàlla bëggoon nag aadama ak awa ñu nekk fa te am nag jotaay boo xam ne dañ koy am ak moom saa su ne ndaxte loolu mooy bëgg-bëggu yàlla bu sell bi waaw am jotaay ak doomu aadama am jotaay am bërëb boo xam ne dafay nekk ak doomu aadama bi ñuy di ko nemmeeku di ko toppatoo doomu aadama bi nekk fa di yéemu ci ngëneeluk yàlla yi ci leeruk yàlla gi ci sellaayuk yàlla gi ñu nekk fa ñoom ñaar looloo taxoon yàlla sàkk aadama ak awa dugal leen ca tool ba te ba mu leen fa dugalee it day wéy di firndeel mbëggeel ak cofeel boobu nga xam ne moom la am ci ñoom téere bu sell bi ñu dippee ko njalbeen ba ca njëkk tubaab bi di ko woowee téere wu genèse boo jàngee saar benn bi aaya ñaar fukk ak juróom benn jëm fanweer ak benn da ngay gis ni bi yàlla sàkkee àddina ak li ci biir yépp yàlla dafa daldi ne léegi nag nañu sàkk doomu aadama ci suñu melokaan nanu sàkk doomu aadama ci sunu melokaan maanaam nanu sàkk doomu aadama ci noo xam ni dina mën a jokkoo ak ñun dina mën a waxtaan ak ñun dina mën a diisoo ak ñun dina mën a bég ci suñu diggante ñun ak moom yàlla sàkk nag aadama ak awa jox ko ay nopp ngir bu yàlla waxee mu dégg jox ko làmmiñ ngir bu amee soxla mu mën a jokkook yàlla jox ko ay tànk jox ko ay liggéey loxo ngir liggéey bi nga xam ni moom la ko yàlla naroon a sant ci biir tool ba waaw xam nga nag foofu dafa am jàngat bañ fay jàng yàlla dafa borom bi dafa ne bi mu sàkkee Adama ak Awa duggal leen ci tool bi daf leen sas it liggéey daf leen ne tool baa ngoog la ca biir yépp jébbal naa leen ko béy leen ko toppatoo leen ko kon gis nga ni yàlla bi mu sàkkee doomu aadama dafa bëggoon it doomu aadama di liggéey di daan dooleem sàkk ko rek ne ko tool baa ngoog yaa ngi ci biir dinaa yebal malaaka yi ñu ñëw di la ko béyal yow moom tëddal di nelaw di yeewu rek déedéet yàlla daf ne ko tool baa ngoog jébbal naa la ko béy ko te nga saytu ko béy ko te nga saytu ko waaw béy ko te nga saytu ko mu ne ko nag lépp li nekk ci biir tool bi jébbal naa la ko ba mu des garab bii nga xam ni mu ngi nii ci diggu tool bi te muy garabu xam lu baax ak lu bon boobu moom dama la ko tere bu ko lekk waaw mais bu weesoo loolu lépp loo gis ci biir tool bi rek yow yaa tax ma sàkk ko yow Adama ak Awa yéen a tax ma sàkk ko lépp man ngeen ko jëriñoo gis ngeen boobu mbëggeel gis ngeen boobu cofeel yàlla jël la duggal la ci bërëb bu mel noonu te xañu la fa lenn lenn lenn lu dul benn garab cundum te garab boobu nee na li tax mu xañ leen ko dafa xam ne bu ñu ko lekkee xam lu baax ak lu bon te yàlla buggul aadama ak awa ñu xam lu bon ah te dinañu gis ci kanam lan moo taxoon yàlla buggul ñu xam lu bon kon aadama ak awa nekk ci biir tool ba di fa déggal yàlla di béy tool bi di ko aar di ko saytu yàlla di ñëw di leen nemmeeku saa su ne di am jataay ak ñoom mu doonoon loo xam ne macha allah jàmm rek a fa amoon waaye bu ñu wéyee leen nettali bi mbokk yi ñu ne ñu benn bés coow daldi ci tàbbi la andi coow li lii la ñu ne ñu benn bés benn mbindeef ni aadama ak awa maanaam koo xam ni yàlla moo ko bind jël melokaanu jaan ñëw seet si leen ngir waxtaan ak ñoom ci seen diggante ak yàlla mbokk yi pour xam waxtaan boobu nan la demee ak lan lañ ci mën a jàngate dinañ ci dellu si tout léegi waaye nañu déglu cant tuuti te dellu si wat
طلبتك من عمق قلبي يا ربي يسوع آه الخطية يا ربي يسوع المسيح أعني
إني معينا لكي تخلصني يا ربي يسوع أعني
jërëjëf mbokk yi jërëjëf ci cant boobu nga xam ne dégg nañu ko léegi te muy màggal yàlla sunu borom kon ñu dellu si ci li nga xam ne fa lañu nekkoon fa ñu taxawoon mooy bi beneen mbindeef ñëwee seet si aadama ak awa mbindeef boobu nag du kenn ku dul seytaan waaye téere bu sell bi nañu dafa ñëw ci melokaanu jaan la ñëw seet si leen ba mu ñëwee mu fekk fa awa mu daldi tàmbali waxtaan ak awa mu ne ko awa mu ne ko naam mu ne ko ndax dëgg la ni yàlla daf leen tere ngeen lekk lépp li nekk ci biir tool bi dégg ngeen lim ko wax mu ne ko ndax dëgg la ni yàlla daf leen tere ngeen lekk meññeef yi nekk ci biir tool bi xam nga loolu rek dafa xaw a doy waar nan la yàlla di sàkkee aadama ak awa mu dugal leen ci tool bu mel noonu ba pare tere leen ñu lekk ci bépp meññeef bu nekk ci biir tool bi loolu naka la mën a nekkee xanaa daa bëgg ñu dee sàkku leen ngir ñu dee daf leen sàkk ngir ñu dund deewu aadama ak awa amalul yàlla benn njëriñ waaye gis ngeen ni ko ko seytaane laajee awa daal di ko tontu téere bu sell bi di ñu ko wax nettali boobu nekk ci téerewu njalbeen ba maanaam genèse ci saar ñett awa daal di ko tontu ne ko déedéet waaye garab bii nekk ci diggu tool bi te muy meññ meññeef bi nga xam ne ku ko lekk doo da ngay xam lu baax ak lu bon boobu yàlla daf ñu tere ñu laal ko daf ñu tere ñu lekk ko seytaane daal di ko ne awa mu ne ko naam mu ne ko déedéet déedéet yàlla kay daa buggul ngeen mel ni moom ndaxte xam na ni bu ngeen lekkee meññeef boobu di ngeen xam lu baax ak lu bon te bu boobaa da ngeen di mel ni moom te loolu la buggul cey seytaane gis ngeen mu ngi dugal ci xelu awa ne ko yàlla même bu waxee ne da laa bëgg mbëggeel boobu am na fu mu yem waaw ndaxte buggul nga mel ni moom te boo lekkee lii da ngay mel ni moom léegi nag mbokk yi benn laaj rek moo fi nekk benn laaj moo fi nekk mooy que ni aadama ak awa yàlla mi leen sàkk jox na leen ndigal nee na leen lépp man ngeen koo lekk ba mu des benn garab bii nga xam ni bu ngeen ko lekkee xam lu baax ak lu bon te bugguma ngeen lekk ko beneen mbindeef ni ñoom di seytaane bu boowoo jaan ñoo feeñu leen ne leen la leen yàlla wax loolu nekkul waaye la ma leen wax man mooy ngëneel ci yéen lekk leen ko ngeen ngeen xam ngir ngeen xam li baax ak li bon laaj bi yépp mooy awa ak aadama kan lañuy déglu kan lañuy topp loolu rek mooy laaj bi mbokk yi te ba suñu jongu tey jii loolu mooy laaj bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war nga ko laaj sa bopp yàlla wax na ci téere bu sell bi muy bible bi la mu wax leer na bëgg-bëggam yi leer na sell na te mooy ngëneel ci ñun waaye yenn saa yi ñu dégg yeneen i wax yoo xam ne méngoowul ak bëgg-bëgguk yàlla yi méngoowul ak waxuk yàlla ba ban lañ ciy tànn def loolu rek moo am solo loolu mooy jàngat bu njëkk bi ñaareelu jàngat bi mooy aadama ak awa tànn nañu déglu mbindeef ni ñoom daal di lekk garab ga wala boog ñu lekk meññeefu garab ga waaw ñu lekk meññeefu garab ga kon weddi nañu yaxu yàlla seen boroom tebbi nañu ko teg fa waxu beneen mbindeef ni ñoom lu tax ndaxte dañoo bëgg a mel ni yàlla mbindeef ba nee na leen bu ngeen ko defee seeni gët day ubbeeku ngeen xam lu baax ak lu bon te bu boobaa da ngeen di mel ni yàlla doomu aadama munul mel ni yàlla du dëgg doomu aadama munul fexe mukk ba mel ni yàlla du dëgg téere bu sell bi daf ñuy wax ni yàlla xamul lu bon yàlla du def lu bon yàlla du jege lu bon te garab bii nee nañu ku ko lekk da ngay xam lu baax ak lu bon kon boo ko lekkee munoo mel ni yàlla ndaxte yàlla xamul lu bon yàlla du def lu bon yàlla du jege lu bon waaye bëgg a mel ni yàlla moo puus aadama ak awa ba ñu lekk meññeef ba yow mi may déglu loolu rek moo fi nekk ba tey ba tey jii doomu aadama yi ñu wax ko ak ñu bañ koo wax dañoo bëgg a mel ni yàlla waaw da ngay xool ci suñu réew yi wala ci réew yi bitim réew da ngay gis léegi dañuy dañuy jël benn doomu aadama moo xam góor la wala moo xam jigéen la ñu ne kii star la wala kii superstar la nit ñi di ko tàccu mu yëkkati ay loxoom buy mu mu mel ni yàlla ci ñoom waaw am na réew yoo xam ne nit ñu mel noonu dañuy gis ay nit ñoo xam ne nee nañ ay taskatu xibaar lañu maanaam ay journaliste lañu wala ay photographe lañu dañuy yéeg ci kaw ay garab dañuy fanaan ci seeni oto ngir di saytu ñooñu ngir di leen xool di leen photo di xool ci lu ñu ne di ko bind di ko wax di ko tasaare parce que ñooñu dañu mel ni yàlla ci ñoom léegi xam nga su ma xoolee mbir yu mel noonu damay ne cey doomu aadama bu munoon a sonn ci mbirum yàlla noonu bu ko yàlla jaraloon muy yëg ci ay garab ngir di saytu di limbeccu ko mbirug yàlla yi bu ko yàlla jaraloon muy fanaan ci otoom bu ko yàlla jaraloon muy bind saa su ne li yàlla bëgg li yàlla wax li yàlla di def waaye déedéet ah ni doomu aadama ni moom la koy defal doomu aadama yi dañoo bëgg a mel ni yàlla waaye bëgg a mel ni yàlla te mënoo doon yàlla dalay andil coono ak jafe-jafe loolu lañu téere bu sell bi wax téere bu sell bi nañu bi aadama ak awa lekkee meññeef boobu seeni gët ubbeeku na yàlla ko njëkkoon wax daf leen ne woon bu leen ko lekk ndax bés bu ngeen ko lekkee seeni gët dina ubbeeku di ngeen xam lu baax ak lu bon seeni gët ubbeeku na bi seen gët ubbeekoo ñu daldi gis ne ñoom kat yaramu neen lañu def gàcce dugg leen ñu dem laxatu ji léegi gis nañu ni yaramu neen boobu ñu defoon baaxut gis nañu ni gàcce la ci ñoom ñu daldi wuti ay xobu garab ngir muur seen awra xam nga jafe-jafe tàmbali naa dugg laata ñu ñuy xam lu baax ak lu bon loolu andi lu leen woon benn jafe-jafe du benn sax waaye léegi xam nañu lu baax xam nañu lu bon dem nañu wuti ay xobu garab ak muur seeni awra téere bu sell bi nañu ñu dem ba ca kanam ngoon dugg yàlla ñëw seet si leen ci biir tool ba nga xam ne fa la leen tegoon ba ñu déggee baatuk yàlla ga ñoom ñu daw dem laxatu ji te yow doomu aadama fooy laxatu ba yàlla du la gis foo mën a dugg ba yàlla du la gis say jafe-jafe ak yàlla say coono yi nga xam ne lenn waralu ko lu dul say baakaar laxatu dindiwu ko déedéet dinañu déglu cant bu ñu dégloo cant tuuti ñu dellu si ngir ñu xool ndax laxatu boobu mën na dindi coono yi ak jafe-jafe wu aadama yi
صلاحك فليدركني سريعا يا رب يسوع المسيح أنا عندي اكشف وابعد عن خطاياي يا رب يسوع أنا عندي
من سمعك إلي واستجب لي عاجلا يا رب يسوع المسيح أعني
ظلل علي بظل جناحيك يا رب jërëjëf mbokk yi ñu ngi gërëm yàlla sunu borom ci cant yooyu nga xam ne moom lañ ko jagleel ndaxte moom mooy kenn ci ñun moom mooy ki nga xam ne kenn melul ni moom te kenn mënul mel ni moom it kon mbokk yi bu ñu dellusee ci nettali bi nga xam ne ci lañu newoon aadama ak awa daldi dégg baatug yàlla ca tool ba ñu daldi dem laxatu ji yàlla ne ko aadama mu daldi wuyu mu ne ko foone mu ne ko dawaa dégg sa baat ma daldi tiit ma dem laxatu ji kon xam nga jafe-jafe am na daan na dégg baatug yàlla waaye du tiit mbégte la ca daan am daan na dégg baatug yàlla waaye du laxatu au contraire day daw dem wutali yàlla ndaxte nekk ak yàlla nekk ci keppaarug yàlla ci teewaayug yàlla mbégte kese la woon ci aadama ak awa tey jii ñu dégg baatug yàlla ñu daldi tiit dem laxatu ji jafe-jafe am na te la ko andi nag mooy meññeef ba nga xam ni moom la ñu lekk bés boobu la bàkkaar tàbbi ci seen biir dund ndaxte bàkkaar yow mbokk mi nga xam ne yaa ngi may déglu téere bu sell bi di bible bi daf ñu ciy wax li daf ñuy wax ni bàkkaar yemul rek ci rey nit wala fen wala saaga wala njaaloo mbir yooyu nga xam ne ci gis-gisu doomu aadama ay mbir yu rëy la ay mbir yu garaaw la bàkkaar daal mooy nga teggi waxuk yàlla bàkkaar mooy nga def wala nga xalaat wala nga mébét loo xam ne méngoowul ak bëgg-bëgguk yàlla yu sell yi aadama reyul kenn aadama njaaloowul ak kenn aadama fenalul kenn aadama jëlul alalu kenn aadama la mu def mook awa mooy yàlla wax ne leen lii ñoom ñu def def safaan ba bàkkaar tàbbi na ci seen biir xool te la leen bàkkaar boobu jural nag mooy fu ñu déggatee mbirum yàlla fu ñu déggatee baatuk yàlla tiit ak ragal day tàbbi ci seen biir xol ba tey jii doomu aadama fu mu déggee ñuy waaraate ci kàddug yàlla te ñu tibbee ko ci kàddug yàlla bu sell bi tiit ak ragal day tàbbi ci biir xolam ndaxte mu yëg ko ak mu bañ ko yëg ruuwam am na jafe-jafe ak yàlla ndaxte tàbbi na ci loo xam ne waru ci woon a tàbbi laata muy lekk meññeef boobu ragal amul woon léegi la am waaw naka la la yàlla mënee bind yow aadama ak awa jox leen la mu leen jox ci tool boobu ñuy woowee àjjana bàyyee leen ko ne leen yéen yéen a ma fi teewal yéen ay samay gouverneur ci biir tool bi yéen a ma fi toogal lépp jagleel naa leen ko ku mel noonu nan nga mën a déggee baatam nga tiit bay laxatu kon def nga loo waruta def ah, boo tiitee bay laxatu def nga loo waruta def yàlla ne ko génn leen yow aadama ak awa ma wax ak yow yéen ñu daal di génn bi ñu génnee yàlla ne ko xanaa da ngeen a lekk gar meññeefu garab ba nga xam ne dama leen ko tere woon yàlla xam na lépp waaye day laajte ngir may doomu aadama bi occasion wu mu tuub ay bàkkaaram ci kanamu yàlla yàlla xam na ni lekk nañ ko xam na ko bu yàgg waaye da leen di laaj ngir ñoom ñu mën a wax ak seen làmmiñ ñu mën a tuub ngir yàlla mën leen a jéggal ndaxte yàlla yërmande kese la waaye téere bu sell bi wax ñu ni nañuy def ñun tey jii noonu la aadama ak awa def kon la ñuy def ñun tey jii ñu ngi ko copier ci suñuy maam aadama ak awa aadama daal di ne yàlla man daal jafe-jafe bi yépp mooy ne soxna sii nga xam ne yow yaa ma ko andil moo ma jox meññeef bi ma lekk ko dégg ngeen waxu aadama ba de nee na yàlla soxna si nga xam ne yow yaa ma ko andil moom moo ma jox meññeef bi mu ngi tuumaal yàlla waaw maanaam bu ñu déggee waxu aadama mooy ne bu ko yàlla andilul woon soxna si kon soxna si du fi nekk ba koy jox meññeef bi moom mu koy lekk kon problème bi du moom jafe-jafe bi du moom jafe-jafe bi soxna si la te soxna si yàlla moo ko fi andi man ak yow it noonu la ñu mel rek noonu lañu mel saa yi ñu tàbbee ci bàkkaar ñu ñëw nañu lii nga def ni jaaduwul ñu tàmbali waaw dëgg la ni saa sa dóor naa ko waaye moom dafa ma saaga te waruma woon saaga waaw dëgg la sax ni ñàkkee naa ko kersa waaye dafa fekkoon ni dama meroon waaye dafa fekkoon ni dugg na fi génn na fële dañuy wut ay lay ngir li nga xam ne mooy suñu responsabilité suñu wareef dañu koy daw saa su ne yàlla ne teg ne awa mu ne ko naam mu ne ko waxal awa it moom day daw responsabilité am comme ñun niñ koy defee mu ne yàlla wax dëgg fa yàlla jaan bii nga xam ne daal moo nekk ci tool bi te xam naa ni sax yow yaa ko war a sàkk jaan jooju moo ma wax ma lekk ko ma lekk ko kon bu amee jafe-jafe du man danga ko war a lijjanti ak jaan bi waaw du man jaan bi la du man jaan bi moo ma ko jox waaw mais bu ñu wéyalee noonu kan mooy gàddu responsabilité bi kan mooy gàddu wareef yi kan mooy taxaw tuub ay bàkkaaram ci kanamu yàlla kenn ci ñoom du aadama du awa waxul yàlla maa ngi jéggalu ci sa kanam ndaxte jalgati naa sa kàddu te loolu bàkkaar la te bàkkaar du lu war sama digganteeg yow kenn ku nekk mu ngi jël responsabilité ba di ko jox moroomam moo tax mbokk yi seydina isaa yeesu krista ba mu ganesee àddina dafa am baat bu am solo bu mu fi waxoon dafa ne lépp loo xam ne doomu aadama am na ko ca la mu gën a fonk pare na ngir joxe ko ngir mën a muccal ruuwam loolu la seydina isaa wax waaw li doomu aadama bi gën a fonk ci àddina li mu gën a yaakaar ci àddina pare na joxe loolu ngir mën a muccal ruuwam te loolu dafa feeñ ci diggante aadama ak awa xam nga téere bu sell bi daf ñuy wax ni yàlla bi mu sàkkee lépp ba noppi aadama la njëkk a sàkk moom tundum waaw mu nekk fa daal di wéet ci biir mala yi yàlla xool loolu ne baaxul du li gën boog nit aadama di doon moom kese dinaa ko defal wéttali te bu mu sàkkee awa ci faaruk aadama yi def ko mu doon jigéen andi ko téere bu sell bi dafa ñu ne aadama daf ci bég lool lool lool lool lool sax waaw mu ne léegi nag lii kii nag mooy man sama genn wàll ñi ni léegi nag mot naa sëkk yow yàlla sama borom maa ngi lay gërëm di la sant ci sama biir xol waaye tey jii bi nga xamee ni jafe-jafe amee pare na pour sacrifier awa pare na pour joxe awa ngir musal ruuwam moom aadama loolu la Seydina Isaa wax waaw jëkkër dina jéem a joxe jabar ji ngir musal boppam soxna si dina mu jéem a dugal jëkkër ji ngir musal boppam waajur yi sax dinañ jéem a dugal seeni doom ngir musal seeni bopp loolu la téere bu sell bi wax waaw amul lenn loo xam ne nit ki parewul pour sacrifier ko ngir muccal ruuwam kon aadama ak awa ngoog kon jërëjëf mbokk mi yéen ñi nga xam ne yéen ak ñu doon déglu kon dinañu dellu si waat ci waxtaan bi ngir xool jaar-jaar yi ngir xoolaat tëralin bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom tëral ngir aadama ak awa ngir ñun ñi nga xam ne dañu sokkeekoo ci aadama ak awa te ñu tàbbi ci baakaar nekk ci jafe-jafe yooyu nan lañ ci mën a génnee kon bu ngeen wéyee di ñu topp di ñu déglu ci suñu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi ah di ngeen xam fan la ñu jëm te di ngeen xam ne bu ñu fa àggee ngëneel kese lay doon ci kenn ku nekk ci ñun kon ni ñu ko waxee ñu ngi ñaan yàlla wàccee jàmm ak ngëneelam yi ci biir réew mi ak ci dund kenn ku nekk ci ñun di ñu gindi di ñu tette ba ñu man di moytu fiiruk seytaane ndaxte gis nañu ni li ko dalee ci aadama ak awa ba léegi de du tàyyi di lal ay fiir ci suñu kanam waaye yàlla ci kàttanam mën nañoo may ñu jéggi fiir yooyu ba xam bëgg-bëgguk yàlla yi te nekk ci saa su ne jàmm ak salaam jërëjëf
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35